fii magasin. waaw man dama yoroon place. loo ci doon jaay. man salon laay jaay salon kiwir laa doon yi ma lakkale daal moo ëpp. man daal li ma lakkale ci salon man na huit salon ëpp na ko sax mais a ñaata la war a toll ci xaalis. 12 salon bu ne 800000 rek nga ko fekk li nga 750000 moom lu mu tuuti tuuti dina jar 800000 750000. mais noonu la daal affaire bi wert noonu daal noonu dañu jékki-jékki rek yu dégg yoo xam bi ñu génn naan camion rëcc wala leneen. Ah, man bi maa ngi toog sama place kay yoo yoo ci angal bee la départ yoon bi may gé bi may génn yi séntu damaa kaa ne oto bu rëcc la ndax sama booy daw di yoo maanaam mbaadu oto la ma génn seen sawra nekk ci kaw ma ne ah lii de musiba booy jàppale nañ ma génne la ma ay quelques salons fii mais fii ñu ko teg fi la tàkk dara génne naa lu sawar si dafa am doole. li nga jotee génnee lépp a tàkk. lépp a tàkk génne ma benn man moom duma ma denc xaalis fii fii moom du ma denc xaalis wax dëgg yàlla li ma lakkale daal du ëpp nag man du salon yi kiwir la daal yi ci des ëpp na ëpp na ay mën na salon xëy na yow xaay bi mën naa jar 400 wala 350 mais moom du salon moom bu ma ci bëggan 800 wala 750 moom danaa ko ci am waaw. tey jii lan ngeen di ñaan état. ah état daal moom ñun daal ku ñu dimbali bàyyi suñu liggéey bii nu jël. parce que fii bi ñu fi ñëw andina nu fen dara góorgóorlu ba ko ne ku ci nekk yaa ngi ciy suturlu suturlu maanaam am nga ci foo mën a eh, dugal sa njaboot am ci looy dundale sa njaboot xëy na nag lii mbett la moo xëy am na waaye bu ñu bàyyi ñu defaraat xëy na lii dutul am parce que nun ñi fi nekk xamante nañu képp ku ñu fi gis ngay defar loo xam ne bii tegut yoon dinañ la ne lii du fi dugg waaw mais daal nañ ñu jàppale mënum laaj ñu xaalis ku ñu comme ça yéene nag bu baax boo ko dimbalee dinañ jël waaye nag du ñu laaj kenn xaalis bu ñu bàyyi ñu defaraat suñu place ñu wax ni ñu ko bëggee ñu defari ko noonu waaye daal moom euh, du ñu sonal kenn ci ne ko jox nu dara nañu bàyyi fii nag daal ñu góorgóorluwaat jéem a lijjantiwaat parce que fii ne ñoo ngi dugg koor gi daanaka koor gi ñëw na kenn ku nekk sa njaboot yaa ngi wut loo leen mën a jàppale ci koor gi ak yeneen événement yi fii dafa jegañe ku nu mën a jàppale daal nu mën a defaraat balaa koor gee ñëw ak yooyu mën a jàppale suñu njaboot yooyu loolu moom gënal waaw loolu rek la yàlla yàlla boole dimbali daal. waaye ñu ngi lay ziare bu baax Serigne Baba ci waaw fii laa nekk ci pàcc boobu. mën nañu bi lan bi nag euh, exact mënaguñ la wax li ko waral quoi. parce que am na ñu ne foofu am na ñu yor ay restaurant am na ñu yor ay mayga mais am na ñoo xam aussi dañ leen dañuy liggéey si biir comme menuisier yi. moo tax nag ba léegi xamaguñu cause bi lan la quoi en fet loolu la. mën xam lakk bi commencé. 15 heures mais euh, nag euh, vraiment am nañ ci xaw a lu ñu métti. parce que quinze heures mu koy lakk ba 16 heures cinq sapeur door a ñëw te nekk à 0 mètre de nous loolu aussi dérangé nañu ci quoi. waaw parce que vraiment c'était en face. deux minutes sapeur egg si. te def nañ une heure 35 minutes. presque deux heures de temps. gis le maire tamit mhm. waaw li waaw mooy pour ñu moderniser rek. mais loolu ñu ngi si ñun toujours quoi mais xam nga ñoom bu ñu waxee rek dem ah loolu seen wax rek ngay jàpp mais jëf ji moom ba léegi amul mm-hmm. buñ bëggoon ñu moderniser na ba léegi moderniser nañ parce que vraiment ñoom ñoo ilif fii mhm. kon ñun ñu bëgg mu mel rek war na ne mën a mel quoi. waa nañu xayma xayma bi li de millions. Mhm. waaw fii moom plus de cent million moom la yàqu na fi moom. waaw wala lu ko ëpp kay plus de matériel am na ñuy jaay téléphone portable am na ñuy jaay ay meuble salon am ñuy jaay ordinateur te lépp yàqu na. foofu quoi mooy meuble yi quoi mhm. salon meuble ak ñi euh, nga xam ne matériel informatique la ñuy jaayu fii comme ay affaire chaise bureau. ñooñu ñëpp place Cheikh li fi yàqu ci place daal mooy moyen ëpp na soixante cantines. pour cent dix. waaw mais mhm. mhm. na fii nii. effectivement mhm. tey mu amaat fii. Ah, waaw waaw ñun ñu ngi bàyyi xel mais comme xam nga ñun duñu état. état moo mën a ñëw liggéey. waaye bu fekkee état bi daa ñëw rek wax. demaat xam nga loolu presque amul sens ki ñun quoi mais ñun xam nga ne bu ñu fu fuñ marché bi nu mu gën a moderniser moo nu gënal ma fekkee da ngaa wax rek dem bàyyiwaat na ku ñu nekk ñun dañuy continuer rek defee na ñun tam li ñu nekk dëgg la. bon à travers de monsieur Alioune Ndoye moom mu ñëw taxawu waa marché bi xam nga ñu xool nu mu gën a moderniser ñu def ko ni ci anam boo xamee ni vraiment kenn ku ne dina ci mën a gis boppam quoi. parce que ci fi ñëpp ay centaines de personnes ñoo fi nekk yuy liggéey ñii ñu ngi jógee Bawal ñii ñu ngi dëkk Dakar ñii Sine ñii Saloum li fi dayee kii ethnie daal. c'est presque c'est le Sénégal ethnie yëpp a fi te kenn ku nekk yaa ngi fi ameloo xaay ni ci ngay suturaal say njaboot ko en fait avec ça nag vraiment lii moom xam nga métti na mhm. waaw fu ne nii ñun duñ xamuñu duñ fu ñu jëm xamuñu nan la ñuy def quoi déjà waaw waaw waaw ñun fii ñun fii ñun ne ñu ñëw fii di euh, di jënd di nañu jënd di jaay ñun ñun ñu jënd fii di jaayaat bu ñu ñëwee gars yi ni ñuy jaay ñu waat jaay yaa ngi dégg bu ñu jaayee yaa ngi dégg dàq suñu wërsëg ñëwaat amee benn commerçant boo xam ne barki dem na naa ko wàccil fii bagage alimentation moom tamit bagage yëpp si la tool moom tamit lépp lakk xam na kooku doo ko yàlla def moom kenn mënul si dara waaw nañu doole sant yàlla rek du kii wax léegi ndaga bakkan ay bakkan waddu si rek dara waddu si rek nañ sant yàlla alal ñu ñoo ko mën a liggéey waaye mënuñu koo liggéey waaw lu yàlla def moom kenn mënu si dañuy sant yàlla di ñaan yàlla yàlla euh, xeeb doole sa lii bu ma yaat ne leneen lu ëpp lii waaye waar daal doy na waar fii moom lu fi lakk moom tool commencement ba ma ba fin fa la ma fekk. waaw commencement ba fin fa la ma fekk. man ba ma ñëwee am na benn taaboor boo xam ne mu ngi ko doon jënd benn taaboor benn taaboor amagé laa doon jënd. ma jënd ko ba pare ba fay ko waa ba pare ba ma ko fayee ba pare man fu may di dem si pharmacie kii si kii ni su sax Samsung bi jënd benn clim si laa gis waa ji naan eh, ay sa fii mu ngi kii de mu ngi maas. man garaay bi mu ngi koy wax mu ngi koy wax waa ji kuy suude ma ne ko sa fii mu ngi maase la ba mu koy wax mu ngi maase man si biir ba ma duggee si biir nag ba ne sa dommage non non non man xaw ma moo waral waaye naa man xam naa moom man ba may génn moom ak fu mu lakk bi li moom benn nday doon moom waaw na waa ji ma fay naa ko xaalis ba mu ba mu jox ma sama kayit ba booy génn table bi booy fu ñu génn table bi fu muy duggee si samsung bi ak fu muy lakkee benn na waaw man dem naa ne ba talatuma ay taaba talatuma yooyu lépp lu lakk lee ñu lakk na moo ëpp man lu ma jënd waaye maa ngi sant maa ngi sant yàlla di sant di ñaan yàlla ñu ñu fi lakkalee ñoom tamit yàlla neen yàlla mayaat lu gën lu ëpp li du fi jógee sam nekk lu gën si ñoom si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weeru waaw man waaw man man man moom waaw man moom man moom man moom euh, alimentation nay jaay sa sama client yi bëri foofu lañ nekk am na ñoo xam ne démb démb naa ko démb démb naa ko wàccale valeur lu tolle ay daanaka ay 3 millions et quelques ay 3 millions ay quelques xam ne comme ko ko lakkaloo kooku du ma taxaw nekk fay ma for foofu waaye nag lu yàlla dogal moom kenn mënu si dara waaye sa yàgg naa kaay jaay bu may jox ay millions macha allah xaalis bi lu jeex na kaa moom sa foofu mooy dépp foofu moo nekkoon déppoom moom tam dama koy dama koy dama koy may xolu dama koy ñaanal xolu muñ du ko ñaanal lii tamit du dara ndax doomu aadama yaa mën a liggéey am yaa ngi mën a liggéey am waaw sant naa leen gërëm leen tata ñu ngi lay nuyu waaw ñu lay fay tur bi naka la man Ndeye Thiaw laa tudd ah Ndeye nga amoon fii boutique wala magasin. waa magasin laa fi amoon waaye nag lakkul wax dëgg yàlla waaye sama mbokk ak sama mag yeeg sama rakk yi dañoo lakkle borom lal li lakk-lakk bi lan moo ko indi. ah nee nañ benn mayga la de mayga bi nekk ci ginnaaw moom la kantingam lakkoon waaye metti na torop dëgg yàlla ku leen jàppale daal ñu jël ndax lii metti na torop ci seen kaw ndax ku nekk yaa ngi jóge sa dëkk di daan sa doole metti na. donc ñoom seen magasin yi li fa nekkoon lépp a lakk. lépp a lakk moom génneew ñu dara wax dëgg yàlla génneew ñu dara waaye sant yàlla ndax moo gënoon bakkan la wadd waaw. merci beaucoup sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay bu baax. ñun tamit ñu la koy delloo. yow dafa lakk. waaw ñun suñ magasin moo lakk ak suñ gars yi ñoo nekkandoo ñoom fii bagage yëpp lakk kenn génnewul dara. bagage yëpp jotoo génnee dara. fii kay kenn génne bu fi dara dara. waaw lakk gi fan la la fekkoon ci biir bu magasin fekk non fekk fekk ñu ci fekk ñu nekk ci mbedd bi nii doon am ñu doon jënd ji tourné seen saxaar bi le temps que daw di ñëw avant ñuy ñëw mënu ñëw agsi boobu boobu lakk gi presque saxaar si dem na noo xam ne ak feu bi mëntu ñoo dugg ndax ba pare courant yi fil courant yi ñoo doon pété am dootoo am dootoo mën a ronu ci suuf pour mën a génne say bagage ama courant moom bu xasee tàkk rek da ngay mujj obligé mujj arrière noonu la demee moo tax mu ñëwoon génnee benn bagage noonu la demee. lan nga yoroon fii ban jaay. ay accessoires la jaay accessoires téléphone yi ay écran tablette téléphone yëpp a ngi woon ci biir. non téléphone li fi lakk ci téléphone fi fi doole lii bu ñu ko doon xayma ci ci lakk nii ay milliards moo lakk ay milliards lañ lañ jaaxule fi ñu nii. nga gis koo xam ne dana vingt ans mi ngi di xuslu dajale ba am tey lu bari te xëy na tey lépp. lakk na. xaalis beeg lépp ci boutique yi la nekkoon. xaalis beeg yëpp ci boutique la nekkoon kenn génnewul dara ku dul sa jëmm génnul waaw noonu la demee. ñu leen di masawu bu baax. waaw yaa ñu ngi la koy dolloo bu baax a baax a baax. ginnaaw bu ñu la masawuwee lan nga lakkale. waaw man de sama place lépp lakk na mi ngi noonu lii moo teewoon vitrine bi léegi moo ci des yax gii waaw lépp a tàkk. lan nga doon jaay. téléphone laa doon jaay ak tablette lépp a lakk lépp a lakk ba jeex. dafa nekkoon ci biir boutique. lépp a lakk amul lu ma génne laa la wax ay carax la war ah moom moom loolu foo ma toog kalkin ko mais bari na moom wax dëgg yàlla li ma lakkale moom bari na dëgg dëgg waaw ah, lakkale naa moom dëggantaan moom. gaz bi tàkk daal ci borom mayga bi moo indi lii. ah man de loolu maa ngi koy door a dégg sax man daal ci angle bi daal la commencé tàkk moom affaire bi ci angle bi la commencé tàkk man daw naa ba yërndu ko sax mais bi may waaj a delluwaat sama bagage pour ranger yenn bagage yi bi courant bi di dagg di maas ma ne wóorutuma daw waaw loolu tax mu lépp lakk moom ah. lan ngeen di ñaan tey autorité yi ci lakk-lakk moom ñu xool lii rek gis lii xam ne moom wax dëgg yàlla ci lañ yor suñu njaboot gi yëpp ci lañ yaakaar am nu feneen fu ñu yaakaar dul lii lii moom wax dëgg yàlla bu ñu ci taxawoo ah lii moom koo gis war cee mën a taxaw doomu aadama yi parce que lii ñun ñëpp a lakkale amuñu leen loo mën a xëy liggéey ñu ngi nii nii laa génne nii ay carax laa génne dara lu ma topp dara te mënoo ci dara parce que courant bi nii la moo tax lépp lakk dara dara topp ma daal sax sama daal yeeg lépp lakk amul lu amul lu ma génnee waaw moom métti na métti na état nag moom ñu ngi koy tàllal loxo na gis lii te xam ne ak njabootam lan du dëgg ci la ñuy góorgóorlu ci la ñuy daan doole di yor suñu njaboot ñun ñëpp a yor njaboot fii ñi liggéey ñëpp yor njaboot waaw ñëpp am ku leen yaakaar te ci la ñu yaakaar ñun ci la ñuy xëy di di dóor waar léegi nag li ci des mooy mu taxawunu parce que loolu leen koy doy état ñu am naxar mu mu ànd koog ñun lii mu ne ah yàlla rek a ci des de wax dëgg yàlla amatuñ ci benn solution wax dëgg yàlla parce que lii boo ko gisee sax xam ne solution amatu ci waaw wax dëgg yàlla amatuma ci benn pexe wax dëgg yàlla waaw. ñu masaw bu baax baax. waaw jërëjëf jërëjëf. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñoo ñoo ngi lay fay. da waaw sama cantine moo nekk nii waaw lakk na ba jeex tàkk moom moo nekk nii quoi. sa cantine loo doon jaay. ay téléphone ay ay accessoire ay téléphone ay accessoire lépp ah. dañ cee xaalis. non xaalis nekku ci xaalis nekku ci xaalis moom nekku ci moom waaw. accessoires yeeg téléphone yi lépp lakk ba jeex. lépp a lakk ba jeex lépp lépp lépp jeex tàkk dara génnoon mi ngi nii. sama dàll sax génnul sama dàll dàll yi ma doon sol yëpp ngi fi yëpp lakk mais yàlla baax na sant yàlla rek daa gën quoi jaajëf waay merci beaucoup.